dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko quotidien xëy nag di samp ab laaj ci ndimbal bi nga xamante ne njiitu réew mi di président Macky Sall daan na koy wax ne dafay jënd ak dund koo xamante ni bi ñu ko xayma toll na si juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards waaye nag ana nan la ñuy séddale googalee dund ngir nag mën a jano ak covid 19 bi ci la yéenekaay groupe promo consulting bi daal di xëy daal nay wax tamit ne avant coronavirus di dikk ci Sénégal bëri na ay sénégalais yoo xamante ni amoon nañ ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum dundin bi ñu ko xaymaa sax ci ay rapport yu bare bari wane na ne lu toll si juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróoma ci ay junni ci askan bi yàgg nañoo am ay jafe-jafe mbirum insécurité alimentaire yàgg nañ ko nemmeeku tamit ci Sénégal gox yu si mel ni Kolda Mbacké Diourbel Linguère ak feneen ci biir réew mi ba tey ci biir journal bii di Libération mu xëy di ñu xamal naan ñu en tout cas li am ba des yi ma ngi wéy di am te loole loolee dafay tiital lool ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kër docteur yéen kay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal na ñu li nga xam ne kay moom la ñu nemmeeku maanaam coronavirus bi ma ngi wàññeeku ci réew mi kay ma ngi wàññeeku waaye nag li nga xamante ni mooy cas communautaire yi moom ba léegi ni daal ma ngi ñaaj di jàll te loole nag mooy li nga xam ne mooy lu doy waar li yéen kay gii di l'observateur moom mu xëy di ñu xamal na ñu Hissène Habré mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon njiitu réewum Tchad te ñu tëjoon ko ngir gi dundam ci réewum Sénégal moom nag daat nañu koy bàyyi mu ñibbi këram yéen kaay gi nee na daat nañ koy bàyyi mu ñibbi këram ci lu toll ci maanaam ñaari weer la ko waral nag bu ñu sukkandikoo ci ministre de la justice mooy Hissène Habré Cap Manuel ga nga xamante ni fa la nekkoon bërëb boobee nag dañ koy réserver ñi nga xamante ni ñoom la ñuy doog di yóbbu ci kaso bi bu ñu la fay dog di yóbbu fa lañ lay bàyyi lu toll ci fukki fan ak juróom ndax dañuy njortu ne man ngaa amee jàngoroy coronavirus te bu ñu jekkee jekk rek jël la dugal la ci yeneen kaso yi njombe mën naa am loolee moo tax Hissène Habré daa di féex Walfadjri yéene kaay mu ñu xamal lan ñu ginnaaw juróom ñaari at yoo xamante ni def na ko ci kasu bi daal dañ koy bàyyi mu ñibbi yéene kaay gii de Le Quotidien moom mu xëy di xamal lan ñu Covid 19 bi moo libéré Hissène Habré yéene kaay gii de Le Témoin ne en tout cas li am ba des daal mooy coronavirus bi. lu bon la waaye nag am na côté boo xamante ni la mën na ñoo wax ne daat na fay baax ndax coronavirus bi tax na ñu daal di libéré ki nga xam ne mooy Hissène Habré lu toll si ñaari weera bu doon benn fan sax loolu nag ay xaritu Hissène Habré ñoom nag danañu si daal di kontaan ndax dafa daal di bokk si ñu na loolee nag waa témoin ñoo ko xëy daal di bind ñoom sax daat na ñuy wax ne li nga xam ne sax Covid bi daan na koy def mooy classe politique bi ak ñi nga xamante ni jàppoon nañ ne daal ay opposant lañ yu radical dem nañu fekki Macky Sall waxtaan ak mooma te li nga xam ne mooy couvre-feu bi loolee dina tax policiers ak gendarme yi daal di wàcc ci ruq-ruqaan yi ngir nag faagaagal ñi nga xam ne ñooy samba booy yi journal bi nee na Covid bi tamit daat nay tax ñi nga xamante ni daal ñooy soxna yi kontaan lool ndax bu vingt heures jotee seen borom kër yi daal di bokkatu ci seen weta ba tey ci biir yéen kaay gi moom mu xëy mu ñu xamal lañu nag Covid 19 bi ñii mu gën a gaaw a faat mooy ñi nga xam ne dañoo amee jabeta yéen kaay gi de l'observateur mu ñu xamal naan ñu Pape Diouf ak soxna si nga xamante ni ñoo faatu ci Sénégal ñooñu nag jabet la ñu amee woona te sax bu ñu sukkandikoo ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàll wi nee nañu covid 19 bi du may dara ñi nga xam ne ñoo amee jàngoroy jabet soxna si nga xamante nag moo si faatu woona moom ab restaurant lay yoroona xaritu ndeke Marème Faye Sall la ak Macky Sall Marème Faye Sall sax moo ko tuddee woon ami soble yenn kaay gii da la Quotidien moom mu xëy nag yóbbu ñu Kër ma Massar njàqareeg tiis jamono ji moo fa daal di dugg préfet ba jël ay matukaay lu toll si juróomi nit daal di fay am jàngoroy coronavirus yéeni kaay gii da la témoin mu léegi jamono ji daat na yaatu lool ci Kër Masara ndax nag ab commune la boo xamante ni commune bu xumb la bu bëri ay nit loola yéen kaay gi di laas mu ñu xamal na ñu Kër Masar kay bombu sanitaire la lu nekk mën na faa am jamono ju nekk ba tey ci biir yéen kaay gi di Les Échos moom mu xëy yóbbu ñu diiwaanu Louga mu ñu xamal na ñu am na nag benn commerçant boo xamante ni bu ràññeeku lool la ci diiwaanu luga moom dafa amee jàngoroy coronavirus ji waaye nag daat na kay wàll ñetti soxnaam yépp te li si a doy war kooku amee coronavirus bi cas itam xamuñu fan la ko daal di jëlee yéen kaay gii di enquête mu ñu xamal la ñu nag tëjug école yi nga xamante ni dañu koo daal di yokku loole nag tax na école privée yi ñoo ngi ci ay jafe-jafe rawatina jàngalekat yi ndax nag waajuru xale yi ñoom fayatuñu yéen kaay gi mu ñu xamal la ñu moom enquête ginnaaw bi ñu tëjee nag li nga xamante ni mooy aéroport yi léegi nag ñu bari daal ci ndox mi la ñuy jaare yéen kaay gii di libération mu xëy di ñu xamal la ñu lu toll ci fanweer ak juróom ci ay nit yoo xamante ni jàpp nañ leen ci yoofa journal bi nag moom réew mi quotidien moom mu xëy di ñu xamal ñoo xamante ni ba tey ñoo ngi ëllëwle ay allo taxi jóge Touba ni ñëw Dakar lu toll ci fukk ak ñeent si ñoom daat nañ leen di jàpp Idi Kam mi nga xamante ni moo jiite garage ba moom nag daat na kay naqarlu bu baax a baax ci doxalinu le allo taxi ba tey ci biir journal bii di la témoin moom mu xëy di ñu xamal lañu nag Makhtar Cissé mi ñu dénk wàllum courant bi ak Serigne Mbaye Thiam mi ñu dénk wàllum ndox mi niki démb ginnaaw digg bëccëg gi ñoo ngi doon jano ak taskatu xabaar yi doon andi ay leeral ci facture courant yeeg yu ndox yi ana nan la koy doxalee maanaam ñi si bokk ak ñi nga xamante ni maanaam bokku ñu si gii di réew mi quotidien ak sud quotidien ñoom tamit ñu xëy di ñu xamal lañu Macky Sall nag daat nay identifier ñi nga xamante ni daal maanaam ñoom lay jàppale ci mbir mi yéen kaay gii di la quotidien ñu xëy fekk fa nag patron de presse yi ñoom ñoo ngi fàttali Macky Sall li nga xamante ni maanaam digoon na leen ko wax ne seen subvention yi daf koy daal di yokku ba tey ñoom nag nee nañu daal jàpp nañ ne Macky Sall nag dina daal di wàccoo ak kàddooma yéene kaay gi ba tey moom libération mu xëy di ñu xamal ñu nag ASP bi nga xam ne teg nañ ko loxo ca diwaanu Thiès lu toll si ñetti téeméer ci ay autorisation de circuler maanaam moom la doon jaaya yéene kaay gi de la turbine xëy nag am xel mu teeye ne lii nga xamante ni mooy faatug Iba Thiam maanaam ana nag nëpp nëppal li nga xam ne mooy dossier bi ndax lu toll si ñaari fan rek dossier bi jël nañ ko dénk ko lu toll si ñett ci ay brigade loolee moo xëy jaaxal journal bi yéen kaay gi du l'observateur mu ñu xamal laa ñu nag Diop mi nga xamante moom la ñu doon wax ne moom moo yegg ci xale bu jigéen bi di Jaynaba ba mu daal di wan loro Jaynaba nag jamono ji am na doom journal bi nee na nag xeex bi nga xamante ni moo si des jamono ji ana doom jooju kan ko jur ak Jaynaba ci boppam ñaata at la am yéen kaay gi di sunu la am xëy nag dikkal ñu ci Mohamed yi bi nee na ñett ñii daala maanaam toj nañu làmb waaye nag ba ñuy génn ci bunt bu ndaw bi la ñu jaare génn